أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbokki jullit yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ba tey noo ngi ànd ak yéen ci yonent yuusa alayhi salaam xam ngeen ne sunu dars passé mooy moom yonent boobu bi ko sunu borom subhaanahu wa taala yónnee mu war a dem ànd ak waa banu israil dem di xare ji waaye di libéré ji dëkk boobu tudd baytil maqdis àndoon nañ na ak yéen ba moom yuusa bi mu génnee ànd ak armeem jublu dëkk boobu waaye bi mu àndeek soldaar yi arme bi jublu dëkk ba yàlla daf ko nattu bala muy egg dëkk ba mu fekk jant bi di waaj a soo waxoon naa leen bésub àjjuma la ca tàkkusaan ca ngoon te xam ngeen ne xare guddi baaxu ci dafa baax ci kuy xare ànd ak say soldaar ngeen xeex ba cëkk moom nag yàlla nattu na ko ba mu ñibbee ba mu ñëwee ba jib dëkk ba yàlla def jant bi di waajo soo mu nekkoon bésub àjjuma ca tàkkusaan ca ngoon kama taarifuun li ann alqital fi leyli laysa sahlan xeex guddi mbokk yi nekkul lu yomb waaw xeex guddi nekkul lu yomb parce que guddi doo gis doo xam ko jàkkaar lool mën nga caw sab àndandoo jaasi mën nga mën nga mën nga dugg ci lu nekk ci ay erreur mën nañ laa gañe moo tax bi mu jibee dëkk ba tàkkusaan di waaj a jot lan la def moom yuusa te bu fekkee tàkkusaan a ngi waaj a jot guddi jot na du mën a attaquer dëkk bi beneen natt bi koy dal mooy day delluwaat samedi lay ñëwaat te samedi dañoo tere banu Israël ñu xeex ca seen jamono léegi lan moo xew moom yonent boobu dafa jàkkaarloog jant bi di wax ak jant bi waaw ne jant bi yow day xam nga ne innaka maamura wa ana maamur yow de yàllaa la jox ndigal waaye man it yàllaa ma jox ndigal yow jant bi waaw comme nag yàllaa la jox ndigal moo lay fenkloo moo lay soloo yow jant bi maa ngi ñaan sama boroom mu téye la fii na bëccëg bi yàgg tey trop ba ma ubbi dëkk bi nga doog a sow li lay wan na yonent yi alayhimu salaam seen ñaan ñoom ñépp yàlla da koy nangu mu ne allahuma ahbisha alayna yàlla téel jant bi bu mu sow tey fastajaaba allahu duaahu yàlla nangu ñaanam moom yuusa fa axara alxurub xatta tamma nasr yàlla yéexe sog yi xanaa jant bi yàlla areeru ko de waaye da ko téye foofu rek boole ko ko fa ba soldaar yi ñëw attaqué dëkk bi song ko ba libéré dëkk bi yàlla di waaj a sool doog a sool wa fi zalika yaqulu alxabibu mustapha sallallahu alayhi wa sallam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy leeral ci ay xadisam xadis boo xam ne mu ngi ci saxiix rawahu alxatib albagdadi wa ahmad an abi hurayra wa saxahu alalbani fi sahih aljami yenent bi nee na maa hubisati sams ala bashar qat illa ala yusha ibnu nun waaw yenent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam musuñoo téyel jant bi kenn kenn musta am ci yonent ci ay sart lu dul yuusa doomu nuun pour lan téyel nañ ko jant bi pour mu dem saara ilal baytil maqdis pour mu mën a dem dugg baytil maqdis yàlla dimbali na ko keroog moom yuusa téyel ko jant bi jant bi sowut ndax mu mën a am leeraay pour mun a dugg ci dëkk boobu daal di koy libéré man tawaadaa lillahi rafaahu llah bokk yi ku suufe suufe lu ngir yàlla rek yàlla yëkkati la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man tawaadaa lillahi rafaahu llah képp ku wàcc képp ku suufe suufe lu yàlla moo lay yëkkatil boppam fa innahu lama araada lama daxala yuusa alayhi salaam fatihan muntasiran amara bani israil an yadxulu madinat al quds sujjada moom yonent bi bokk na ko ci li ko yàlla xéewalele mooy mu ubbi baytul maqdis yàlla dimbali na ko mu gañee bi mu gañee mu daal di digal banu israil mu ne leen bu ngeen di dugg ci dëkk bi sujjóot leen ngir sant yàlla ay rukkaan mutawaadiin na ngeen dugg ngeen rukkoo sujjóot sant seen boroom shakirin allah azza wa jal ala ma manna alayhim min fathi alazim alladi kaana allahu waadahum iyaahu yàlla moo leen digoon ne bu ngeen àndeek yuusa dinaa leen may ndam di ngeen ubbi dëkk bii di baytil maqdis tey dig googu yàlla digoon leen tey sunu borom subhanahu wa taala dimbali na leen ba loolu mu leen digoon daa di ko yàlla daa di koy mottali léegi nag comme loolu am na yàlla leen digoon leen la mu leen digoon mu daal leen koy matalal mooy ubbi nañ dëkk bi gañe nañ libéré nañ dëkk bi yuusa ne leen bu ngeen di dugg ci dëkk bi sujjóot leen ngeen sant yàlla wa an yaqulu xaala duxulihim bu ngeen di dugg ci dëkk bi sax na ngeen wax baat yi mooy lan mooy xitta xitta li muy tekk ci arab ay xutta anna xataayaana allati salafat yow yàlla ñun de dañoo amoon ay bakkaar yoo xam ne jiitaloon nañ ko ñoo ngi sàkku ci yow yow yàlla nga jéggal ñu bakkaar yooyu loolu mooy xitta yàlla baal ñu suñuy bàkkaar bàkkaar yi nga xam ne nun ñii ñoo ko def mbokk yi ab jullit walla nit ku yàlla bind moom suñu boroom mu dig la ne la boo defee nàngam ma defal la nàngam yàlla dimbali la defal la nàngam boobu dal moo la war su la yàlla defalee xéewal mooy nga sant ko rawatina nag nga ànd ak ab yonent mu ne la su li amee defal lii ñu ànd ak ab yonent yàlla ne leen bu lii amee def leen lii loolu am yonent ba ne leen sax nii ngeen di defee pour yàlla baal leen wax leen lii ay déglu leen banu Israël seenu dëgër bopp ak seenu ñàkk a teggin ak seenu xamadi ak seenu réew ak seenu mbon ba ñu duggee ci dëkk bi dañoo lànk def li leen yonent ba waxoon loola tax yonent alayhi salaatu wasalaam ba mu duggee màkka yow mu fat daxalaha wa huwa raakib naaqatahu wa huwa mutawaadi xaamid shaakir wala yonent moom ba mu ubbee màkk keroog fatxu màkk wante ba muy dugg màkk dafa war gëleemoon mutawaadi ndeysaan mu ngi wàcc mu ngi suufe to mu ngi toroxlu ci kanamu yàlla mu ngi am victoire mais mu ngi toroxlu keroog maa ngi dégg benn waay ci benn whatsapp waa ji di wàññi di wàññi yonent bi di yëkkati darajay kilifam fii keroog fatxu mag ma nga naan yonent baa nga dajale gaa ñi naan leen lan laa leen di def gaa ñi ne ko baal ma ak terme yi waa ji yi muy waxee ngeen yëg na ñu ngi ci aaxiru zaman su ay nit demee bay suufeel yonent bi di yëkkati seen daraja kilifa koo xam ne yàlla moo ko yëkkati wa rafa'na laka zikraka dañ ne maa la yëkkati tey àdduna bi dëkk yi nga xam ne am nay jàkk ñaata jàkk ñoo am ci àdduna bi ku ko xam hmm? Sénégal donc ñaata jàkkaa fi am xam ngeen ah Dakar ñaata jàkkaa fa nekk Pikine géejawaay tey bu ñu la ne woon konteel mosquée yi nekk géejawaay bi nga dëkk rek nga am problème xoolal jàkk yooyu yëpp waxtu wu jot bilaal ba buy noot dina waxturu muhammad kooku yëkkateeku na wala yëkkateekuwul ah tey bu ñu doon ut tur bu tur bu gën a siiw ci àdduna bi dañuy jël turu muhammad moo tax gis nga boo demee màkk màkk ñu dëkk màkk ku ñu gis muhammad lañ lay wax yaa muhammad a tariq muhammad tariq rek kuñ gis rek muhammad nga tudd lu tax parce que ñoom dañoo gëm ne adduna bi genn wàll gi muhammad lañ leen tudde même boo demee ci commerçant yi di jënd dañ la la yaa muhammad waaw booy muy yox buñ lay waxaale yow turu muhammad lañ lay jox bu dee góor nga wala ñu ne la xaaj waaw a tariq xaaj a tariq bàyyil yoon bi bàyyil yoon bi ndeysaan ñu la yoon bi jullit yaa ko moom yoon bi pour jullit yi la bul fi topp kon mbokk yi yonent alayhi salaatu wasalaam keroog bu mu duggee màkk ci gëléemam la yéeg waaye moo ngi suufe suufelu moom yonent bi moo ngi sant xéewal yi ko yàlla defal yonent bi sangu na keroog mu julli fa juróom-ñetti rakka mu nekk julli sant yàlla tey li ñu jàng ci àdduna li ñu jàng ci àdduna mooy ku yàlla may ndam ku yàlla may ndam lan ngay def da ngay jibile di yuuxu yaa ci mbedd yi organiser benn cortège oto ak ay moto ah gars yi di klaxonné même bu dee céet sax sa séet dangaa góorgóorlu ba yàlla may la soxna muy sëyi sax oto yi dañuy ran di klaxonné xoola yonent moom keroog ba ko yàlla mayee ndam moom lan la organiser mooy julli juróom-ñetti ràkka pour sant yàlla sallallahu alayhi kon ku yàlla may ndam fi da ngay gis kuy jàng am bac lan lay sante yàlla ah musique xale bu góor la xale bu jigéen la lan lay sante yàlla damay def arrosage da ngay gis nit di def nu mu tuddati taarixul milaad di def anniversaire anniversaire dund naa at dund naa ñaar fukki at lu la war doo sant yàlla ana ñu ngi fi juddooloon tey bu demee ci armée li fekk ñu bari ñu ngi leen suul waaye nga gis waa ji organiser musique damay def anniversaire musique ah nit ñi xéewal yi leen yàlla defal ñu ci ëpp duñ sant yàlla xoolal yonent moom keroog bi ko yàlla mayee ndam moom dafa organiser julli julli juróom-ñetti raat sant yàlla wa amma banu israil ñoom banu israil ba leen yàlla mayee ndam fa innahum xaalafu ma umiru bi ñoom dañoo wuuteeg li leen yàlla santoon qawlan wa fi'lan jëf ak wax lépp lañ wuute waaw lan lañ leen waxoon dugg leen bunt bi bu ngeen dugg sujjóot leen ngeen ne yàlla baal ñu suñuy bàkkaar ñuy darngu xam ngeen darngu ah xam ngeen darngu ñuy raam naan xabbatun fi shaar ñenn ñi naan xintatun fi shaar baat yooyu lañ doon wax xabba fi shaar ñenn ñi naan xinta aljazaau min jinsil amal loolu nag nekkul premier musiba bu waa banu Israël def loolu nekkul premier te nekkul bu mujj ñoom liñ leen xamee mooy toroxal seeni yonent waaw mbugal nañ ginnaaw Muusa yonent yu bare bare bari soppi nañ tawraat ci seeni loxo def nañ lu leen neex foo pas-pas bi leen yonent yàlla Moussa indi leen ñu fooye pas-pas ba yemuñ ci sax sunu borom subhanahu wa taala moo ñu doon wax banu Israil ginnaaw Moussa lan moo doon seeni jëf sunu borom ne wa ma qadarullah haqa qadri ñoom day banu israil màggalunu yàlla nun ko waree màggal abadan iz qaalu ma anzala allahu ala basharin min shay dañoo dem ba ne sunu borom subhanahu wa taala mësta wàcce ci nit dara yàlla mosu leen a yónni waaye gaa yi fii ñëw naan ay yonent lañ kenn yónniwu leen waaye yow dañuy teree dund rek waaye nañ dund sunu dund waay lu boy di waxee tey waaye bàyyi leen nit ñi ñu dund waay allahu akbar ma anzala allahu ala basharin min shay yàlla mësta yónni benn yonent mësta wàcce benn téere yàlla ne Moussa posé leen question qul man anzala alkitab alladi jaa bihi Moussa waaw kon bu fekkee yéen da ngeen ne yàlla mësta yónni kenn yàlla mësta wàcce benn téere waaw téere boobu Moussa indi woon ku ko wàcce téere boobu tudd tawraat yàlla joxoon ko Moussa kon fu mu jóge téere boobu nga xam ne nuuran wa hudan linnaas leer la ëmboon ak njub pour nit ñi téere bu mu yàlla mësa wàcce rek téere ba hudan wa nuur waaw gis nga même alquran zalika alkitab laa rayba fii hudan lil muttaqin téere bu yàlla musa wàccee rek njub moo ci nekk moo tax nit ñi bu ñu dummooyoo njub loolu rek alku wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan dank nit ñi saa yu ñu dummooyoo li leen yàlla jox rek dañuy dund dund bu bon mooy dund bii ñuy dund tey dund bu bon la ñuy dund dund njaay àll rayante tamante dëmm ah waxante lu bon yéenante lu bon waaw daanaka tey fi nu toll ci àdduna dund rabu àll yi la ñuy dund dund rab rab loolu yàlla doon wax ne summa radannaahu asfala saafiliin foofu la ñu toll tey ni rab yi di dundee ci àll bi tey noonu la doomu aadama yi di dundee waaw ci defante yu bon waxante yu bon yéenante lu bon rayante lekkante tey ci lañ toll ni def lu bon waaw nit ñi sax tey am nañ kersa def lu baax am nañ kersa wax ko am nañ kersa sol ko am nañ kersa dox ko tey ku baax da ngay am problème ndax lan da ngay ñàkk koo àndal ñàkki mbokk ñàkk grand place da ngay wéet tey boo baaxee da ngay wéet ah da ngay tumuranke tey foofu la àdduna bi toll foofu la nit ñi toll li may wax ñun ñëpp xam nañ ko waaw bu baax rek tey am nga problème mooy sa mbaax gi di nga ko wéetoo banu Israil tamit noonu lañ meloon rey ay yonent def yu bon fowe téere yàlla yàq pas-pas ba sunu borom subhanahu wa taala leeralal loolu ñu ci alquran yàlla mu ne téere bi yàlla joxoon Moussa nga xam ne leer a ci nekkoon ak njub ngeen feeñal ci lenn nëbb ci lenn la ca ëpp da ngeen ko nëbb yàlla nee na man xamaloon naa leen loo xam ne xamaluma ko woon kenn yéen ak seeni baay ay yàlla daan ne yonent ba bàyyi leen rek ñu nekk ci seeni caaxaan di ci fiy di ci lab ba ñu dajeeg man banu Israël dellu ci seeni lëndëm googu ñu nekkoon ak seen pas-pas bu bon ñu ne ñoom ñooy peuple éli ñoom la yàlla tànn shaabullahi al muxtaar ñun àdduna bi ñun la yàlla tànn ñun ñoo gën a baax gis ngeen liñ doon wax léegi lii benn la ci pare gu ñoo yàlla di ñu woon gis ngeen lii tey buñ leen laajoon lii ci lan la bokk lu ngeen di tontu ah lii ndax lii ci njub la topp la bokk wala ci lan la bokk mi ngi nii gis nga pare gu ñu yéen a ngi gis affaire yi ndeysaan kon waa banu Israil ci ndëngte goo xam ne moom la ñu sunu borom subhanahu wa taala informé ne ñoom ci loolu lañ nekkoon ci yàqut ak mbon ak reewande rey yonent yàq pas-pas fawe diine yàlla ah ak def ay bakkaar def ay conneries yu bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëri dem ba jàpp yonent yàlla yónni woon rey leen seen xol yi wow gumba ñu yëkkatiku ci kaw nit ñi ñu ne ñu dem ba ne ñun sax sunu xol yi da yàlla dafa kastewu sunu borom diñ ko nettali mu ne fa bima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati llah wa qatlihim al anbiya bi gayri alhaq wa qawlihim qulubuna gulf bal tabaa allahu alayha bi kufrihim fala yuminuuna illa qalila sunu borom nee na bokk na ci seen taxawaay mooy fecc kóllëre fa bima naqdihim mithaqahum fecc kóllëre gu ñu waxante woon ak yàlla ak weddi aaya yàlla yi wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihim al anbiya gis nga jàpp ay yonent di leen rey ñoo rey Yahya rey Zakaria ci rey goo xam ne du benn dëgg la neex la ñuy def ñu dem sax ba ne ñun suñu xol yi dafa kastewu yàlla mënul dara bu ñu yónnee ay yonent tamit dañuy dafay sonal boppam rek yàlla mu ne man maa kaste seen xol yi ndax seenu kéefir seeni bàkkaar ñoo bari bàkkaar su bëree xol day wow nit bu bëree bàkkaar xolam day wow koŋ loolu ngeen dégg yàlla di wax ne kalla barana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun nit buy def ay bakkaar bakkaar boo def day nekk benn tomb tomb ci sa xol bu ñuul soo defee beneen beneen tomb tomb nga def beneen beneen mu nekk amaat beneen noonu ngay def bakkaar yi di bëri tomb tomb yi di bëri ba xol bi xëy ñuul kukk su xol bi ñuulee nag lu muy tekki mooy day wow koŋ kenn dootu la wax yàlla ba mu saf la kenn dootu la wax yàlla ba mu ñor la suñ la waaree doo jooy dootoo dem sax ci place waaraatekaa yi dootoo julli dootoo jaamu yàlla lu tax summa qasat qulubuhum fa hiya kal hijaara seen xol yi day wow ba dem ba mel ni xeer yàlla ne sa xoolal déedéet déedéet déedéet déet xeer a gën a nooy ndax am na xeer yoo xam dañuy jékki-jékki rek daal di mab ngir ragal yàlla am na xeer yoo xam dañuy jékki-jékki exploser ndox génn ndeysaan nga gis nit ñi yaakaar ne xeer bi dafa exploser ndox mooy génn ndeke xeer bi day jooy nit ñi gis ndox moomu ñu yaakaar ne ndox la ndeke ay rongoñ la allahu akbar ndeke xeer yi sax am na ci xeer yoo xam ne ñoo tane doomu aadama ya suñu borom wax na ko ci alquran mu ne law anzalna hadha alquran ala jabalin la raaytahu xaasian mutasaddian alquran bi moo ko wàcce woon ci xeer yi di nga gis montagne yi di màbb di toj ndax ragal yàlla pourtant alxuraan boobu ci xol yi lañ ko wàcc xol yi ne keng waaw keng waaw kenn du tiit ngir yàlla kenn du ragal yàlla alxuraan mënalatul tey ni ah dégg naa benn waaye ci li ma doon wax sànq mu ne alxuraan bi ni mu ni mu gën a silaabeer wala alxuraan waaye benn nit di ko tollaleeg silaabeer alxuraan bi ni mu gën a silaabeer ñun téere yi ñuy jàng noonu lañ gën a alxuraan alxuraan waxu kan la kalaamu man yàlla ndax nit ci àdduna mën naa wax wax joo xam ne mooy gën alxuraan te gis nga fen yooyu li tax mu doy waar mooy kooku wax loolu tey bu julli jotee bu jàllee lu muy jàng lu muy jàng waa jooju Faatiha ak saar lan la alxuraan lu tax moom kon jàngul téere yooyu ci julleem ah xam nga loolu rek doy na ak fen yow nga ni lii ma yor moo gën alxuraan julli jot nga bàyyi li nga yor jël alxuraan waxoon dëgg mais mal asaf nit ñi dañoo réer tey réer sori yàlla dañuy dem seytaane jàpp leen iblis jàpp leen iblis jàpp leen ba ñu génn ci seen wax yi loo xam ne yàlla danaan kaburat kalimatan taxruju min afwaay rëy na ñii seen làmmiñ yi li muy génnee waaw iblis bi mu déggee firaaw ne ne ana rabbukumul aala maay yàlla ju ngànd ji iblis dafa tëbb ci kaw daal di daanu ci suuf daal di ne ah man de maa fi gën a kàccoore waaye lii nag moom musuma koo wax maay yàlla iblis ci boppam lii de man musuma ko wax man de maa gën a saay-saay ñëpp waaye sawaa ji nag li mu wax moom man wax musuma ko wax maay yàlla pourtant ay sénégalais ñu ngi fi naan maay yàlla man yàlla laa loo xam ne iblis ñëmewu ko woon wax iblis keroog ba mu gisee waa Quraysh yéeféer yi jàkkaarloog yonent bi iblis xool gis Quraysh ni ñu am ni ñu bëree iblis xool armée yonent bi mu gis malaaka yi nekk ci iblis dafa ñëw ba ci waa Quraysh ne leen hee dem naa de gis naa lu ngeen gisut inni axaafu llaha rabbal alamin man damaa ragal yàlla daw gis nga moo tax chaque jour nit buy def lu bon iblis dalay jàpp di la pousser di la pousser gis nga tey gis ngeen waa ji nga xam ne dafa génne woon barki dem benn pistolet dóor ko pour taximaan bi ci bopp bi taximaan ba dee tey jii ku demoon ci waa ji ne ko waa sawaay danaa ni it ma damaa juum damaa juum gis nga nit su meree rek iblis danaan ko carax su ngeen demee ci téere bu tudd salaahu yaqzan li tardi sheytan iblis day wax ni mu su nit meree nu mu lay def iblis nee na bu nit meree dama koy def comme ballu tengs ni xale yi di def bal laa koy def dama koy jël di ko tël nu ma neexee mer ci soldaar yi iblis yi la bokk moo tax waa ji ba mu ñëwee ci yonent bi ne ko dénk ma mu ne ko laa tax dab bul mer de mer xool leen li mu yàq xoole waa jooju xam nga ne rek fajar yéen ñaar ngeen daje arrière oto jënd essence coow nit dee moo tax yonent bi di tere ku armé wu encore ati yonent bi nee na ku yor ngànnaay bokkoo ci ñun parce que boo yor ngànnaay rek iblis da lay dugg da ngay am fit gis nga kenn ci ñun tey bu yoroon pistolet ñu ne dex gi ku fi jaar dañ lay agressé danaan ko xoolal booy kaa leen dem laa wax day jiitu lu tax wiiriwul lu tax wiiriwul ah soo ngànnaay rek terminé da ngay am fit waa léegi yow waxuma nga yor paaka waxuma nga yor jaasi waxuma nga yor pistolet léegi boo yoroon kalashnikov nag ah boo yoroon bomb nag c'est le problème kon moo tax yonent bi nee na jullit du ngànnaayu yonent bi nee na ngànnaay ab jullit du ko fooye ku yëkkati ngànnaay bokkatoo ci ñun bokkatoo ci jullit yi parce que saa yoo meree rek yonent bi nee na boo meree fekk nga taxaw toogal soo toogee demul tëddal soo tëddee demul jógal nga jàppi parce que seytaane moo la dugg te seytaane safara la jëm te safara ndox moo koy fay moo tax boo jàppee boo boo meree boo jàppee rek mer bi dem essayé leen ko ku merati ñun na jël satala jàpp ngay gii fiix seytaan da lay bàyyi waaw seytaan baaxul day fowe nit su meree nee na nit bu meree dama koy jël di ko tël comme xale yi ni ñuy tëlee bal tey ji waa jooju laa wax ku demoon ci moom ne ko sëñ bi li nga def nag dinaa nuyu man kay xaw ma sax nu ma ko defee maa ngi jéggalu waaw maa ngi tuub seytaan noonu lay def boo meree dalaan jam ko dóor ko rey ko nga rey ba pare rek mu taxaw fee ne la yii sawaay am nga problème de nga tiit nag commencé gis nga am na benn waay bu ñu jàpp parcelle ñu ngi ko jàppee Saint-Louis dafa rey nit ba pare doon daw ndar lañ ko jàppee tey tey da nga leen journal ndar ndar lañ ko jàppee léegi lu mu doon lu muy daw parce que iblis moo ko duggoon iblis mooy dugg nit ñi ñuy def ay bêtises voilà gis nga c'est ça kon nanu nanu góorgóorlu suñu kéemtalaayal kattan ñu moytandiku bu baax ngànnaayu di mer parce que iblis baaxul iblis dafay toroxal doomu aadama iblis dafay yàq jëf mbokk yi sunu borom ne wax ji ñu wax ne sunu xol yi dañoo wow yàlla nee na maa kaste xol yi du ñu gëm mukk falaa yuminuuna illa qalilan doo fekk mukk banu israil ñu gëm yàlla bari ñi ci gëm yàlla yëpp tuuti la ñuy nekk ñi des ñëpp ay yéeféer la ñuy doon lu tax parce que xol yi la yàlla yàq xol yaa yàqu kon mbokk jullit yi lii mooy sunu dars tey incha allah ba samedi ci kattanu yàlla noo ngi jéggulu njuum tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu fekkee am na ay question incha allah amin wa iyaakum